mu dëkk nit day bëgg mbokkam te nit day bëgg boppam bi ma ñëwee fii sànq julli ci jàkka ji damaa ñaan ci kàttanu yàlla ak mbaaxu yàlla ni Modou Kane Thiaw ma la toog yàlla sa borom guddal fanam damay ko wér pourquoi ma wax loolu tey jii fii station bi nekk képp ku fi am terrain wala kër ak loo fi mën a am valoriser na ko nga weñee ko jël xale bi di Ibra Diouf nga ni daf lay consolider jàppale ko non seulement mu def la nga ni Bawol di doomu Mbeewaat yàlla li la may mu tuut ak nu mën toll nga jël ko bokk ak waa Bawol bokk ak waa Bawol moo waral nga jël station bu toll nii investissement bu toll nii ñëw ba fii ca def ko fi ku gëmul yàlla ko kon ngi gërëm ngi lay nuyu ngi lay sant nga defal yu li ngeen sol mom moko ko solo ko xalé mbeuri bëri innovation la tarar na nga gis signature bu melni nii signature bu melni bo gisé mu am ak ñaari xalé yi wara a muy diggante chat bu walo ak ki nga xamné moy grand bañi di Kalmu Ndour Modou Kan ciow ñi nga lay wax ni la xam nga événement bu mag yaakar na naa demaguñ ci lamb ji mais lancement bi wane na ni événement bi ak ni mu toll kon ñu koy ñaanal yalla diko sant diko gëreum diko wax ne kontane ci taxawaye drapeau bu nekk am nañ ko waaye tey Modou Kane jël na xale yi yóbbu leen ci beneen niveau xale boo fi gis tey mu ak li fi gis dañoo am lu ñu sant yëg seen bopp te loolu bu ko nit defee defal la ko dafa laaj def fi ñun bu ñuy ànd ak Ibrahima bu ñu liggéey ak moom yow ñëpp defal li ci seen ay mbokk la ñu am ñu couvrir jàppale seen mbokk yaakaar naa dëkk bi dana gën a dox may ñaan nag yéen ñi toog fi ak ku mën di doon. yéen ñi fi taxaw ñëpp te lamb tax leen a ngeen tàccul ñu Modou Kat Diaw ci kàddu yàlla baax ngeen mën ngeen tàcc mais nag ki nga xam ne mooy station bi doon na sax jóob la sax waaye tey ji defuñu fi nañu nañu ak ñi fi nekk la Modou ñi nga fi mat nañu daw taxawu nañ ñu nañu lamb ji nga. koy mbay sunu rakk sunu xare li Ibrahima Diouf sunu doomu nday li ma def mu jël ko ndax xëy na boo déggee ni ñuy wax rek nga ne dañoo baa ngi ni taxaw ñëpp a taxaw mu ànd ak moom ñëw jëmmal ñu ñi ci ginnaawam suñu ay nijaay suñu ay su suñu ay xarit su ay am di jàmm di gërëm soxnaam di gërëm ay doomam ak ñi ànd ak moom ndax boo gisee délégation bi mu dugg see nga xam ne baax rek moo am solo Lamine mënu ñoo wax li ñu gis rek la ñu wax waaye ñi di ñaar yéen mbëri waxuma la kenn waaye xam naa ne bis bi ngeen jëm la tànk ngeen xam ne yéen a ngi bëree lamb jàmbaar lamb nit ku baax ndax ay mbokkam ñoo ko avant ñu Ibra Diouf loo góorgóorlu doy wane na ni tey jii sécurité bi fi am gendarmerie taxaw barrière yi lépp doy la ngeen ñu rek la ñu am le 30 rendez-vous bi yéen waa Bawol ku ñëw fii tey ni ñu ngi Dakar wala ñu ngi Bawol kon yokkute am na kon sëñ Modou kan yàlla yàlla defal la jàmm ñu ngi lay kontaane bu baax a baax da ngeen dañ bëgg indi ñaari drapeau la présenté drapeau yi jox ko ko mu xam ne lii moo ko moom ñu jëm ci combat bu mag bi ñu ngi tudd di jégalu ku fi ñaari drapeau mag waaw mais xam nga ñaari drapeau bu barke Serigne Mbacke Madina ginnaaw bu ñu sante yàlla julli yónnent bi di sant suñu ñaari waajur di nuyu mbokki Xombol gépp ginnaaw bu ñu teewee fii muy la vingt ci bés bu mag boo xam ne dañ cee jëm gars yi may leen tuutiwaayu may leen ni tuutiwaay ngir yàlla loolu dañuy nuyu bu baax suñu sëriñ ba suñu yaakaar de Cheikh Ibrahima Mbacke moom sëñ Mbacke Madina moom sëñ Maodo Moustapha moom sëriñ Touba moom Mame Mor Anta Sali Mbacke moom Mame Maram Mbacke ndax da di suñu sëriñ di suñu xarit di suñu lépp doon sët ci sëriñ Touba doon sët ci maam Cheikh Ibrahima Fall du ma noppi di ko wax fenn ndax soxna Adama Fall soxna Adama Fall mooy maama soxna ma Adama Fall maam Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibrahima Mbacke

di ko wàcce ci seen adjoint maire Modou Kane Thiaw mi nga xam ne moo nu dajale fii tey ndax ku ne xam ne ne structure bi ñu ngi ko tuddee Mbeewaan production ku ne xam ne Mbeewaan production bu ñu ko waxee nekkul ne Ibra Diouf rek ko tax ñuy wax dañ ko décentraliser ndax bi ñu demee di nag licence Abdoulaat mii lañ àndat bëri woon na ay proposition yu ñu joxoon ci ay tur mais dañu ko rejeté ne pourquoi pas Mbeewaan lañ juddoo fa lañ yaroo fa lañ màggee lepp lu ñu am te mënuñoo représenté Mbeewaat loolu bëgguñu ko ku ne xam na lam jamono ji mu toll moye moo koy def ak fit ak jàmbaar doon got yàlla dogal ne itam ñu nekk ci lam di ci liggéey ànd ci abla mi nga xam ne bépp programme buy am Ndakaaru moo koy taxaw gis ngeen bërki dem boo njaay signature de contrat bu mag bu dox ci Boy Niang Balla ngay de ainsi de suite ak yeneen mbër Sa Thiès Reug Reug keroog bokkoon naa ci ñu fa taxaw représenté fa mbeewaan te ba ñu ma wooyee dañ waxu ñu imra Diouf de dañu ne mbeewaan production yaakar na lolu képp ku doomu commune Diarra ci rax war nga ci am fierté ñu ñëw ci lan nak bëgg ñu liggéey liggéey bo xamné yaakar na ko ku ñu accompagner dañ nañu ko def ndax lan mo tax lolu moy Ibra Diouf moy le vice président association des amateurs de lutte du Sénégal mu nek ci lam di liggéey ba yalla dogal mu agsi fi ñew jël institut am tuddee ko mbéwaan yaakaar naa euh, chaque jour ñu di ma ko proposé naa ma Ibra Diouf kan moo nekk ginnaaw mën na leen ñi nekk sama ginnaaw bëri na ndax laat mi xam ne dara ndax lax moo tax ñun dañ doon ñoo xam ne ay gan mi lañ Diouf lañ sant yaakaar naa mbeewaan ni mu toll bu kenn ku ne génne woon juróomi dërëm danañu organiser Modou Lo ak Balla Gaye danañu organiser Balla ak Tapha te am nañu yaakaar ne Modou Kane mi ñu toog yaakaar naa mënuma wax ci moom ndax ba depuis ba rapport ba léegi beneen lañ mës a déggante téléphone li ci ëpp maa ngi sant bu baax teer mii nga xam ne ci la ñu doon jaarale ay waxam di jëm si ñoom Bakary Tine ak ñeneen ñëpp. loolu nag euh, lan moo waral loolu mooy que dafa yor sama bàjjan bu ko ko sama baay ndey ak baay kon yaakaar naa lii wëllëre la laa xam na ne bés bii am na ñoo xam ne ñu ngi ko doon xëccu Ndakaaru waaye bi ñu ci waxtaanee dama ko ne bu ma ko doon tëgg di perte sax bés bi bésu El Hadj Modou Kane lay doon. ndax bu leen fàtte ne suñu première journée dañ ko jëloon jébbal ko Lamine moment boobu li taxoon jox ko Lamine Gueye mooy que ne Modou Kane dafa nekkoon ci situation yu doy waar muy que ay jarbaatam gaañu ay doomam gaañu ay sëtam gaañu ñu ne comme yëfu àdduna la dañu koy aj ba yeneen jamono parce que ay jullit lañu lii ñu nekk ku ne gis na journée bi ñu njëkk organisé keroog bi ñu taxawalee ki nga xamante ne mooy euh, fourrière ak armée laata ngi nii dañu ne kii fan la jóge yaakaar naa keroog ku ñëw arène nationale xam nga ne Mbéwane production biscuiterie la boo xam ne bu mag la te am nañ yaakaar leen joxaat suñu bopp ne Modou Kat Thiaw bu ñu jàppalee tettanu du ñu conseil jàppale ñu ci biir ak ci biti incha allah édition deux mille vingt trois buy ñëw fii di présenté tafaatin lañ fiy andi ak booy ñaan parce que am nañu xam-xam bi am nañu capacité bi te am nañu ñoo xam ne mën nañu koo liggéey loolu ñu ngi leen di wax ne bëgg nañu incha allah deuxième édition bu ñu koy def deux mille fii. ak ku mu mën di doon bëgg nañu mu doon combat boo xam ne moo xam Tapha Tine la moo xam Boy Niang la moo xam Lac de Guiers la bëgg nañu bu ñu jàppalee dinañ ñëw fii présenté combat boobu ci kàttanu yàlla. loolu nag ñu ñuy sant ki nga xam ne mooy Bigué ci wàllu Peterfalam bi euh, di nuyu bu baax itam sponsor bi nga xam ne tey moo waral ñu ñëw fii ak Lamine Seck mi nga xam ne tey képp ku seetaan lamb Sénégal un euh, cause de Ligue bi ànd ci ak bës ak lamin mii ñu déplacé ko Dakar ñoom matulaay ñu ñëw fii tey. di siyaare kee nga xam ne mooy Mor Seye di siyaare association bi nga xam ne ci laa bokk muy la jeune amateur de lutte du Sénégal ku ne dégg na ko dañuy jël nuyoo bi teg ko ci loxol Balla Diop mi nga xam ne moo yore porte parole bu muy jàllale ko ci ñëpp di nuyu bu baax suñu papa Gaston Mbengue ndax laa ñoo taxaw fii te tudduñu Gaston tudduñu Makan tudduñu suñu nijaay Jéy Seen ndax fii ñii ñëpp nga gis ay mbokkam lañu bàyyi mu faala nga nee di toog kere ba may joxe li nga xam ne mooy question bi moo yëkkati un million joxel pour Modou Kane Thiaw xam ne ñun ay doomi Birane lañu jéey seen bi nga xam ne moo dëkk keroog bi ñuy dëgg licence moo yëkkati 1 million joxel ñu caution CNG kon yaakaar naa mënuñoo ñëw fii ci biiru mbokkam te duñu ko sant gërëm ko ñun nag li ñu bëgg mooy làmb dekk fii ci commune Ndiène Sirakh ndax bu ngeen gisee jël nañu caatu Ndiassane jël ki nga xam ne mooy Ama bu Nduuf caatu Mbeewaan ainsi de suite jël tur bi yëpp ñoom horaire di sat mbër yi nga xam ne bëri nañu yëpp ndax laat wax na ko sànq grand combat bi biñ koy dox 15 jours japp 20 lañu négocier pour grand bañ ak Thiat Walo muy office bo xamne tay ñun liñu bëgg moy Modou Kane taw mi moy suñu premier ministre moy suñu député moy suñu lepp ndax niko tay ni nga xamantene ni tay moy suñu xarit euh, Matar ba doon defee ñukoy tudde drapeau Abdoulaye Diouf sar diko def keneen ak keneen diko def mom lañu bëgg 30 octobre muy dimanche jiri ñew ñëw bu dellusee waa Mbewaan gépp gépp képp koo xam ne bokk nga ci commune Ndiéyène Sirakh ndax sport dafa doon loo xam ne luy dundal ab dëkk na ndax ñii toog suñuy jarbaat lañu suñuy rab lañu di bëre kon buñ ñëwee fexe ñoom ñuy bëre képp kuy autorité ne ci tund yi da ñoo war a jàppale ku ne xam na làmb situation yi ci nekk laat mii li ci ëpp moom moo ma koy coordonné di ko dox ak sama xarit Jibi Njaay mi nga xam ne moo ayala 30 jërëjëf kon ñu ngi le 23 nag dañuy ñëw ndax sama xarit Jibi Ndiaye moo organisé ñaa bu ndaw te am nañ ci doomu meewaan bu war a bëri muy njànku de ñu ngi ñaan yaakaar naa mbokk Modou Kane Thiaw la léppam la deretam la mooy bëre deuxième combat bi le 23. kon Modou Kane Thiaw encore une fois ñu ngi lay tàllal loxo pour nga jàppale structure Mbéwane production parce que laata ngi nii fépp fu ma taxaw sa tur laa fay représenté parce que mënuñu dara xamuñu dara dañuy jàng. lii ñu jàng nag am nañ ci expérience mokkal nañu ko soo ñu jàppalee incha allahu mbeewaan dina jëm ca kanam te nekkatul mbeewaan gu ñuy représenté foo tapé Sénégal di nga gis mbeewaan production je vous remercie